mbokk yi fi teew yépp ñi ngi leen di ziyaara di leen nuyu di leen ndokkeel ci barab bu tedd bi pénc mu tedd mi waaye xew-xew bi nga xam moom la ñu dënmal te sax mën naa ne tàbbi nañ ci di ci fàttali ku tedd koo xam ne ci jàmbaari lislaam yi la bokk bokk ci kàngaami sëriñ Tuubaa yi muy sëriñ Ahmadou ma Niang waaye itam bokk ci njabootam sëñ Modou Khary Niang te ku leen fàttaliku fàttaliku nga sëñ dëkk Niang waaye Baye Serigne wala maam Serigne ñoom ñëpp ñi ngi leen ñaan suñu borom yokki seeni leer di siyaara Serigne Cheikh mi nga xam ne tey jii mooy jëwriñam su ma ko tegee ci loxol ñi nga xam ne ñoo fi nekk waaye xanaa nuyoo bi bu ma dikkee ci biir baas bi rek dama ci jiital ki nga xam ne suñ kilifa la di suñu waajur di suñu lépp muy sëñ Habibu Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Fadal di ko siyaara bu baax borom pësséef la borom yitte la borom yéene la yàlla suñu borom yokk ko tawféex ak man maa ngi siyaara bu baax euh, sëñ sëñ maam Xaadi Ñaŋ waaye sëñ Abdul Asiis sëñ maam Cerno tubarkaala sëñ Abdul Xaadir ñoom ñëpp. su ma leen nuyoo teg ko ci loxol sëriñ jiili mi defe naa ne ñëpp danañ ci jot ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk tubaarkàlla sëriñ jiili sëriñ Mbàkke Abdourahman ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax moom buñ ne sëñ Mbàkke Abdourahman mooy def waxtaan wi rek daanaka ku fekkiwut waxtaan wi sax bu la neexee man ngaa seere ne waxtaan wi am na solo bu fekkee yàgg nga koo topp ndax nit buy wax la mu gëm di jóge ci xolam faw ci xol yi lay tàbbi ndax dañuy wax na kiy yër di wax bokkut ak kiy yëg di wax kiy yëg di wax ay waxam moo gën a garanti moo ëpp jeexit ci kiy yër di wax sëñ Mbàkke nag li muy wax moom dafay yëg di wax donte lépp delluwaay bi day delluwaat ci la mu yër waaye nag da koo dund boole ci ci lépp dafa delluwaat ci diine kon nag yàlla yàlla yokk la tawféex ginnaaw dañ ci def tuuti ci commentaire xam naa dañuy jël benn minute ba ñaar rek ndax waxtu wi dafa mel na lu xaw a guddi ca kilifa yaa ngi fi ñàkkul yeneen lu ci war a topp su ma ko doon tënk sëñ Mbàkke dafa wax ay àq yoo xam ne dox na ci jigéen diggante jigéen ak góor muy ñaari way dencante am na ci yun bokk am na ci yu jigéen ji moom muy soxna si am na ci yoo xam ne borom kër gi moo ko moom laata muy tàmbali mu wax ñu solo sa dencante muy loo xam ne ku ko man defe naa ne war nga koo def ci kaw bu fekkee war na la ngir ragal nga ci ak mooy ca man nga ko kon wax na fa mu dagane wax na fa mu ware wax na sax fa mu araam mu mel ne kon bu xasee ba tàbbi ci ba noppi muy yoon wi yàlla tëral ngir ñu mën a des ci kaw suuf ndax noonu la ko yàlla jaarale ma nga dale ci maam aadama moom sàkkoon jële ci sunu maam Hawa loola organisation boobee wala boog doxin woowee mooy dox ba tax lii lépp am mu ñu nekk ci kaw suuf doon ay giir doon ay askan loolu lépp nag ci kaw dencante mooy la koy lal ginnaaw bëgg-bëggul suñu borom la ba mu jaarale ci li mu ci jaarale ba tax am am ñun ñu am waaye tam ñu man feene ba mën a liggéey man koo jaamu waaye tamit ñu mën a xamante mën a dimbalante kon nañu ko rafetal kon rafetal ko ci dencante gi lay nekk gis nga bu ñu dee wax jàngoro docteur yi dàq faj dañ naan nañu seet fa jàngoro ja jóge ñu faju ko waaye mën naa ne yàquteg jikko walla lu bari li ñuy jàmbat tey suñu ko bëggee faj dëgg-dëgg buñ jëm ci jëmmi ña koy jëf ak ña koy pratiquer waaye nañu dell ci cosaan la mu ñaari way dencante yi gis nga bu fekkee ne ñaari woy dencante lalal seenu dencante nañu ko xool yonent bi sallallahu alayhi koo xam ne wóolu ngeen jikkoom ak diineem bu leen ñaanee seen doom na ngeen ko ko may na ngeen ko may soxna kon nag fa ñu war a mën a dellu delluwaay ba nu war a jël ngir mën a am soxna na doon ci jikko ak diine muy ngor ak diine man foofu laa koy tënk ngor ak diine soxna yi seetam boroom këram na tànn boroom kër ndax soxna Xadija mi son sëñ Mbàkke doon wax dafa tànn ab sëriñ ndax dafa xool ki nga xam ne am na critères yu mu teg ay charte ay melokaan ay jikko daana ku ma ko gis ci moom day kooku laa bëgg mu doon sama sëriñ dafa mel ne noonu la def ba nga gisee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu natt ko ndax daf koo jëloo mu di ko liggéeyal ba mu ko nattoo boole ko maysara moomee muy nattu jikko yi waxuma la dara waaye barkeel gi ci liggéey ba waaye xar baax ya ca am ak yeneen ak yeneen waaye la ci gën a yéeme muy wóor ga ak jikko yu rafet ya mu amee mu daal di xam ne kii kat la doon seet mu daal di sàkko ngir mu doon sëriñam kon jigéen dafa war tànn borom kër waaye nag ci ngorog diine la ko war a tànn kon ni borom kër war a tànn soxna su muy àndal jigéen tam dafa war a tànn borom kër bi muy àndal soo ko defee ñu jaar nag fa leen yoon jaarloo ngir seen diggante mën a dagan ca mooy pas-pas bi Sëriñ Mbàkke doon wax buñ xasee ba lalal seenu diggante nag muy ngor ak diine su boobaa la ñuy doxal lépp ngor ak diine lay doon su boobaa njaboot ga ci ngor ak diine la ñu yaru moom la ñu dund su boobaa kon kër ga ngor ak diine la ñu doxe kon mbedd ma noonu la ñu doxe askan wa noonu la ñu doxe dëkk ba ne lay doxe kon day mujj réew mi yépp ci ngor ak diine la ñu doxe ca kon moo ñu musal nag ci politique bu salte bi ñu nekk tey yàqantale gi ñu yàq nekk tey tongonte bi ñaawante gi njortu yooyu yëpp nañu dellu ca kër ga la ko lar rek bu jagee muy ngoro diine yii yëpp day dàq moo tax damay faral di wax ne gis nga ñaari taa su lalee ab sëy ñaari taa moo leen di remplacer su boobaa am na beneen taa bu ci ñëw boo xam ne kenn bëgg taar ak teraanga képp taar ak teraanga bu dee moo lal ab dencante yooyu saxut taar ak teraanga saxut day jeex su jeexee nag ñaari taa moo fay taxaw muy tàccoonte ak tàppaasante ñaar yooyu su xasee ba ñëw la leen di mujjal muy taa bu mujj ba nag mooy tas tas te yii mooy wax ko ko seetlu gis ko waaye ngorug diine nag sëy bu mu lal suñ demee ba taar ak teraanga jeex ndax taar ak teraanga mën na caa ñëw lu baax la bu ko ngorug diine lalee taar ak teraanga bu dikkee day baax rek mooy li sëñ Mbàkke doon wax ne bu neexee fii ci àdduna ëllëg day neexee rek àjjana ba faaw. kon ngor ak diine bu ko lalee bu taar ak teraanga jeexee su boobaa ngor ak diine moo leen di garanti ba aljana loolu lu mat a bàyyi xel la bu ñaareel bi sëriñ Mbàkke wax lu soxna Xadiija soxna su nekk war ko bàyyi kër bàyyi xel waaye ci àqi borom kër ci soxnaam tam ku ne na bàyyi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ci bàyyi xel Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dana ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram te man nag maa gën ci sama waa kër kon moo tax moo ñu gën kon foofu àq yi mën nañ koo tënk foofu waaye bu dee jigéen li mu ameel boroom këram nag dañ xool ci soxna Khadija soxna Khadija sëñ Mbàkke dafa wax ne bi yonent bi sallallahu alayhi amee lu ko jaaxal ca xuntuma xalaatu fenn ah, wala kenn kulli ci soxnaam muy soxna Khadija ba mu demee ci soxna Khadija tàccuwu ko néew ko xaw ma ay rab nga amee xaw ma loo ame waaye dellu waaye man maa ngi dem sama kër baay wala sama kër yaay waaye fii doo ko fi daanoo waxu ko de. da ko wax jikko yu rafet ya mu amee dalal ko ba mu xam ne kat lii du dara ak yee ci toppaat yëpp waaye wuuteeg soxna si nga xam ne nag fu borom këram jóge ca liggéeyukaay ba wala ca biti ànd ak tàngooram du sawar a ñëw ci kër ga gaaram place bu tas mu dem ca baneen day du wuuteeg kuy daw jàng am na boroom kër yoo xam ne ñoo gone yi daw jàng daanaka dañuy daw jàng gaaram place bu tas ñu dem ci baneen dañu nekk ci gaanam place yi ba miin wi ci guddi jot duñ doyal de ku njëkk a soññee tëri nag yaa fay njëkk a soof yaa ko njëkk soof ndax xam na li muy fekk ci kër gi tàngoor wu mu ci kër gi ci biti su demee dana fa fekk tàngoor wu ko raw ndax ku astafurlaa du ma tudd kenn waaye ndax kama xam a nga fa kon loolu lu ma ta bàyyi xel la lu ma ta moytu la nañu roy ci soxna laa sëñ Mbàkke wax na ko foofu laay mujjee mën na sañ maa wax benn bagaan gu mag defukaayu ndox gu mag goo xam ne nee nañ soxna si benn wan nañ ma ko benn nag bañ ma wan mu doon jëmmi bagaan googa walla boog mu doon gu mel ne moom waaye lu ci mën na xew nee nañ ma bagaan gu mel nii wala gii soxna jaara daana ko yanu ci jamono yu métti di dox lu sori di rooti ca boobu jamono ji dafa metti woon day rooti su demee ba ñëw dañuy njëkkante ndox mi ndax jamono neexul waaye gis nga suñ njëkkantee ndox mi da leen di bàyyi waaye ana lu leen di wax mbaa da ngeen ma ci bàyyee lu ma jàppe boo mbaa da ma ci bàyyee lu ma jàppe boo xoolal ko kooku ñaari njàngate ci am sàmmante matal na war a garu këram waaye matal na war a garu diine mi matal war a këram moo tax mu dem di rooti ba ñëw ca manoon naa am ko ku koy defal ca defu ko matal bàyyi xel war a garu diine moo tax talul lu mu naan waaye lu mu jàpp la tal moo tax musta julli te jàppul musta julli te wirdul door xëy këram bu door door a wër xëy sangam tuubal door a wër këram buubal loolu it soxna yëpp war nañoo xool loola ndax danañ julli ndax ba ñoo julli danañ jàpp ak set ga ca war ndax danañ xëy di tuubal seen borom kër wala dañuy jaayante ñoom fulla de wane ne man bu ma bu ma wanee bu yóbbee kanamam dagana ma yóbbu sama kanam fuuta am na ñu koy def de ndax dana xër di di di di buubal di buub këram am danaa naa ko bàyyee sama sama nawle bi wala man du ma am nangamam warax yooyu ñuy tudd damay bañ a tudd tur bi man mel na man maay ak waraxam wala ak lakkumam dañ ko faral di wax ba ko defal nangam ak nangam te xamul ne lu waaye góob ji moom lay góob gis nga ku ji mbaax ak mbaax rek ngay góob ku ji njekk ku ji njekk barke ngay góob mu tàmbale ci yow ñëw ci say doom ba faaw nag ba aljanna kon moo tax diggante bi yàggut kon boo ko muñee rek mu jeex waaye muñ naa ba dee muñ naa ba dee da ngay dégg ku ko wax ca fekk deewagul te sax muñ duñ ko wutal at yow booy muñ ba faatu fekk la ca muy faatu gi ñu xam naa ngi fi ca moo gën a sax gis nga kërug ëllëg ëllëg ay tay jii amul solo ndax damay faral di wax ne àdduna ak alaaxira dañ doon xuloo àdduna daal di wax alaaxira ne ko yow mi nga xam ne yàq programme da nga fi nekk ak sa faatu mi nga xam ne balaa kenn ñëw ci yow dana fi jaar àdduna ba alaaxira bàyyi ko ba mu wax ba noppi mu ne ko yow nag yow ñaar yàq na la yow muy sàppi ak jeex sàppi ak jeex ca man nag ñaar defar na ma muy neex ak sax wala daarul aaxirat xeeru wa abqa sëñ Mbàkke gis nga àdduna loo fi mën a am lum taaru taaru lalu këpp yi ngay wax ak bu buñ la ko buñ la ko defalee ba noppi nga ne defalatuñ ma daraak nangam mbaag yeneen ak yeneen ak yeneen gis nga yooyu yëpp fii la yem ca loo ci jot nag àdduna loo ci loo koy wut lu mu neex neex lu mu taaru taaru soo demee ba jot ca mu sàppi la loolu moom ku ne xam na gis nga buur yi ëpp matériel ci àdduna tey jii boo demee am nañ lu ñu bëgg loo xam ne am nañ lu ñuy ñee ña ngay ñeetaani ba tey am na lu ñu bëgg lu ñu amul loo am ci àdduna boo ko doon wut mu jaral la lu ne boo xasee ba am ko lu mu neex neex lu mu taaru taaru sàppi na la ñaareel ba day jeex far benn nga bàyyi ko fi wala mu bala waaye ana àjjana nag àjjana moom xayru wa abqaa moo boole neex ak sax kon loolu na ko ñëpp bàyyi xel rawatina soxna fa may tëjee dañuy nettali na am na koo xam ne dafa amoon ñaari soxna kenn ki mooy aawa bi kenn ki di ñaareel bi loolu sax jarul wax bu dee ñaari soxna kenn aawa la kenn ñaareel <laughs> xam naa am na ko wax loolu ci roq bi ne mooy moom kii lu muy wax ni <laughs> waaye lu ci mën di xew ñu seetlu ne daal. dafa gën a fonk aawa bi loolu daa yéene daa am ñoo xam dañu sànni xeer ne bu ñaareel bi ñëwee moom la ñu gën a féeteel sëñ Mbàkke nee na ku baax ci yow nga baax ci moom dégg naa ko ci waxtaan moo tax may nettali li may nettali bu ma kenn féetale nag ci loolu may wax damay nettali rek moo ma ci war bi mu waxee loola bi mu amee ñaari soxnaam yooyu mu gën a fonk aawa bi nit ñi ne di ko mbam kenn ku nekk di wax naan moom xaw ma waxuma la dara waaye gone gi fi ñëw bër bërki démb dong ah bàyyi ndeyam ak bàyyam nii mu ko sàggane nii mu ko def ah màggat mi mu topp rek lu ne ñu def ko wax mu bàyyi leen ba ñu wax ba bàyyi mu woo leen am ndaje ba ñépp toogee mu jékki-jékki daal di woo ñaareel ba daan na diw ana xadi wala ana kumba wala ana jeewoo mu daal di waaxu daal ñëw moom dong toog mu toog ba mu yàgg mu woowaat ka ca ne anamu ana diw daal di di ko daal di ñëw ba mu am ab xaj xaj boo xam ne ma nga ca toog ndànk ñëw mu toog ba yàgg mu daal di waxaat ñaareel bi ne ko baax na jërëjëf mën ngaa yeewu lépp nit ñaa seetaan ñaareel ba yeewu moom doo nga dem mu ba mu yàgg mu daal di wax aawa bi ne ko waa soxna si mën ngaa yeewu ko ba mu jógee di dem xaj ba toppati ca am na xar mu fa nekkoon mooy itam da koo seen dikk xar ba tam toppati ca mu dem mu bàyyi leen ba mu dem mu ne gis nga nag li ma leen di leeral mooy gis ngeen kii fi jóge léegi ñii ko topp duñ ay nit fa mu jaar ak ñoom ba fu ñu jëm mu jëm fa bañ toppe ko nii keneen kun fa mën a jaar nga topp leen nag maa tey wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan sunu borom mu dotti waa muy xeewal wutu dañ dotti ku mukk ci sayyidul wujud defal ko mboolem bi di fuñ mën a nekk ñi ngi yëkkati suñu kàddu nag di jéggulu yëkkati gi ñu yëkkatu kàddu yi ci kanam kilifa yi di nuyu ñëpp di leen wax salaamaaleykum wa di fab nuyoo bi di rek ko teg ci loxo sëriñ Xabibu Mbàkke moom sax Mamadul Faadal mu jottali ko mboolem kilifa yii fii teew ci jataay bi góor ak jigéen mag ak ndaw ma présenté délégation bi nga xam ne mooy délégation bi nga xam ne mooy njabootu maam Haramin Mbakke moom sayar soxna bu sama ñëw fekk si ci at bii atub sëñ Modou Fadiama sëñ Modou Fadiama ñang moom soxna Fadiama Baati moom sayar soxna bu sama moom maam Haram ki jiite délégation bi mooy sëriñ Mouhamadou Mamoun Mbakke moom sëñ Abdoul Ahad di doomi soxna Taayiratu Mbàkke moom sëriñ Modou Xari Mbàkke kof di moom sëriñ Xarimin Mbàkke àndanteeg sëriñ Xaali Mbàkke moom sëriñ Abdul Karim moom sëriñ Mouhamadou Xari Mbàkke moom sëriñ Xarimin Mbàkke àndanteeg sëriñ Fàllu Mbàkke di doomi sëriñ Fàllu Mbàkke moom sëriñ Amdi Mbàkke moom sëriñ Moodu Xaajara Mbàkke moom sëriñ Aynu Mbàkke mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Moodu Ajara Mbàkke àndanteeg sëriñ Fallu Mbàkke ibnu sëriñ Cheikh Xaajara Mbàkke ibnu sëriñ Moodu Ajara moom sëriñ Aramin Mbàkke àndanteeg sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Baara Mbàkke moom sëriñ Moodu Xari Mbàkke moom sëriñ Aramin Mbàkke àndanteeg sëriñ Mouhamadou Mbacke moom sëriñ Amidou Mbacke moom sëriñ Modou Khari Mbacke of di moom sëriñ Xarimi Mbacke àndanteeg sëriñ Abdoul Khadir Mbacke moom sëriñ Amdi Moustapha Mbacke moom sëriñ Modou Adjara moom sëriñ Arabine Mbacke àndanteeg euh, sëriñ Hamdi Mbacke ibnu sëriñ Cheikh Hadjara ibnu àndanteeg sëriñ Lamp Mbàkke moom sëriñ Amdi Mbàkke moom sëriñ moo daa jële moom sëriñ Arabin Mbàkke àndanteeg sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Baara Mbàkke pof di moom sëriñ Modou Xari Mbàkke moom sëriñ Arabin Mbàkke àndanteeg sëriñ Saliou moom sëriñ Ibrahima Mbàkke njurul moom sëriñ Modou Xari Mbàkke pof di moom sëriñ Arabin Mbàkke àndanteeg sëriñ Abdoul Ahad Mbàkke moom sëriñ Baara Mbàkke pof di moom sëriñ Modou Khari moom sëriñ Arabine Mbacké àndanteeg euh, sëriñ Jiili Mbacké moom sëriñ Baara Mbacké foofu di moom sëriñ Modou Khari Mbacké moom sëriñ Arabine Mbacké àndanteeg sëriñ Mbacké Madina moom sëriñ Baara Mbacké moom sëriñ Modou Khari Mbacké moom sëriñ Arabine sëriñ Arabine Mbacké àndanteeg sëriñ Mourtada Mbacké moom sëriñ Hamidou Mbacké moom sëriñ Modou Khary Mbacke moom sëriñ Aramine Mbacke àndanteeg sëriñ Abdou Karim Mbacke moom sëriñ Abdoul Khadir Mbacke moom sëriñ Abdoul Karim moom sëriñ Aramine Mbacke moom sëriñ Modou Khary moom sëriñ Aramine Mbacke àndanteeg sëriñ di ànd ak ba tey sëriñ Ousseynou Mbacke àndanteeg sëriñ Salihou Mbacke ba tey moom sëriñ Fallou Mbacke Ndiour moom sëriñ Ibrahima Ndiour moom sëriñ Modou Khary Mbacke moom sëriñ Aramine Mbacke. àndanteeg sëriñ Baara Ndiaye moom soxna Astou Laobé moom sëriñ Arabine Mbacké moom it bokk ci jiite délégation sëriñ Makhtar Mbacké ibnu moom sëriñ Maam Arabine Mbacké àndanteeg sëriñ Dame Mbacké moom soxna Astou Laobé Mbacké moom sëriñ Arabine Mbacké àndanteeg sëriñ Ibrahima Mbacké njurul moom sëriñ Modou Khari moom sëriñ Arabine Mbacké àndanteeg sëriñ Abdoul Ahad Mbacke àndanteeg sëriñ Sidina Mbacke moom sëriñ Moustapha Mbacke ak sëriñ Jili Mbacke moom sëriñ Moustapha Mbacke kof ba tey ci délégation bi ñi ma ko waxee sëriñ Fallou Mbacke ibnu sëriñ Mbacke Ajara ibnu sëriñ Modou Mbacke Ajara moom sëriñ Arabine Mbacke àndanteeg sëriñ Hamdi Mbacke ibnu sëriñ Cheikh Ajara ibnu sëriñ Modou Ajara moom sëriñ Arabi Mbacke àndanteeg sëriñ Abdoul Ahad Bousso moom sëriñ Dame Bousso moom sëriñ moo soxna Bousso àndanteeg ni ma ko waxoon ba tey sëriñ Modou ngoom ànd sëriñ Madiane ak mboolem taaliba yu baree bari bàyyi ci njabootu sëriñ Modou Ajara Mbacke def délégation ba takkoo takku àndanteeg sëriñ Modou Mbacke Maoul Hayat sëriñ Amdi Ajara moom sëriñ Haramin Mbacke àndanteeg sëriñ Cheikhouna Mbacke ibnu sëriñ Basiru Mbakke ànd ak sëriñ Moustapha Mbakke rakkam ànd ak ba tey sëriñ Modou Mbakke moom sëriñ Moustapha Mbakke ànd ak tey ba tey sëriñ Mourtala Mbakke moom sëriñ Mbakke Hajara moom sëriñ Modou Hajara moom sëriñ Arabine Mbakke ànd ak tey sëriñ Mamour Mbakke àndante ak sëriñ Cheikh Mbakke ak waa kër sëriñ Cheikh Seynabou ak njaboot gi ñu àndal ba tey ci délégation bi soxna maam say Mbàkke moom sëriñ Samba Dieng ca Daaru Xudus ak sëriñ Modou Mbàkke ibnu sëriñ Cheikh Ajara ibnu sëriñ Modou Ajara ibnu maam Xaramin àndanteeg sëriñ Murtada Mbàkke euh, moom sëriñ moom soxna loo moom sëriñ Saalihu Mbàkke moom maam Arabin Mbàkke di doomi sëriñ Moustapha ibnu sëriñ Modou Ajara moom moom maam Alamin sëriñ Xaadim Touré di doomi soxna maam Awa Mbacke moom sëriñ Amdi Mbacke sëriñ Amdi Moustapha Mbacke moom sëriñ Modou Ajara ak sëriñ Sërif Dia ak sëriñ Moustapha sëriñ Moustapha àndanteeg soxna Asawalo Mbacke bindu sëriñ Amdi Moustapha Mbacke ak soxna Assou Mbacke bindu sëriñ Cheikh Ajara ak soxna maam Faati Mbàkke bintu sëriñ Cheikh Ajara ak soxna maam Mati Bousso moom soxna Faati Mbàkke moom sëriñ Modou Ajara ak soxna May buso moom sëriñ Jili moom sëriñ Andi Ajara mbokki jullit yi fi teew mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaara ci turu waa kër maam Aramin Mbakke yëpp ci njiital sëriñ Ahmadou Mbakke moom sëriñ Modou Khari ak sëriñ Falilou Mbakke di xalifa sëriñ Modou Ajara Mbakke noo ngi nuyu nag bu baax mbooleem sunu kilifa yi ñu fi nekk yëpp tàmbalee ci sëriñ Abibu moom sëriñ Falilu ak Cheikh Moudou Mamoun moom sëriñ Abdul Ahad ak ñi nga xam ne it ñooy soxna kër soxna Seynabu Baati di nuyu it ki nga xam ne mooy kilifa dëkk bi sëriñ Cheikh ak mbooleem waakar kër Cheikh Ahmadou Khari yëpp ngi am mbégte nag bu baax a baax mu njaboot gi yëpp ci bés bu mag bu rëy bii nga xam ne sëriñ Ahmadou ma Niang mooy ki ñu ko wooteel di kenn koo xam ne ku ñu xam la ci sëriñ Touba xam ko ci diine xam ko ci jàmbaar yi nga xam ne it ñoo àndoon ak Serigne Touba ngeen wooteel ko gudd gutal nii di ko fàttaliku di ko ñaanal mboo mboolem ak njabootam ak mbooy jullit yépp waaye ngeen xam ne yéen ñii di ak njabootam ne moom kat dafa am ku ko yàlla booleel wala ñu ko yàlla booleel ci bokk ci bokkuk deret ak ci bokkuk pas-pas muy maam aramin Mbakke moom sayer soxna Buso moom maam ma aram nga xam ne ñoom ñaar ñooñule ak soxna Seynab mii nga xam ne moom la ñuy wax léegi muy suñ mbokki waa njatare yi toog ñoom ñett ñooñu ginnaaw ci pas-pas bi ci Sëriñ Tuubaa danoo bokk ci wàllu deret jege lool bokk lépp comme ni ko sëriñ Abdul Xaadir Mbay waxee léegi rek tey delloo ngeen tànqukaay gi ci ndaal yi ndax booleb suñu boroom dafa gën booleb doomu aadama te li tax suñu borom boole leen ci deret li gën la ci moom gën ci nun te leer nañu ne ñun ñëpp ne seenu nekk doon nañ ko sàmm bu wéra a wér a wér kon buñ fi bàyyikoo doon ay jàmbaar ci diine doon cëslaayul Mbàkke doon ci mag ñi nga xam ne tey ku baax kii ñuy tiitaroo muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ñooy ñooñu mooy kooku ñooy ñooñu ci lépp ci fànn yépp ndax duñ génn benn yoon bokk boobu nga xam ne nag ci coobari suñ boroom la amee ngeen xam ko di ko gëstu ba tey ngeen gis seen maam jooju nga xam ne mook seen maam jii ngeen wooteel ñoo bokk lépp ngeen tuddee ko bis bu mel nii ngir lan jëfe diine ngir lan sant yàlla ci boole booloo googu nga xam ne suñ borom boole nañu ko ngir lan dëgëral li nga xam ne ni pas-pas suñu borom la ci suñu diggante ñun ñëpp loola ku la ko defal ku nekk rek war nga ko sant war nga ko gërëm na ngeen xam ne mbooleem ku askanoo tey ci aramin mbakki rek ak soxna Zeynab moomee amee na leen cant amee na leen ngërëm ndax da ngeen dajale ñu bëri ñu tasaaroo dangeen dajale lu bëri lu taqalikoo dangeen a dajale lu bari lu réer te dañuy wax ne nit ku baax kat warta mujje ab cëram mu réer kon dama jàpp ne yéen ñii nga xam ne yéenay sëtaati sëriñ Ahmadou Fa Diaw Niang nga xam ne nun ñenn ñi fi seeni wayjur lañu sunuy rakk wala sunuy doom tolloo ak yéen ci wàllu silsila ni muy doxe xam nañ bu baax li ngeen nu defal waaye xam gi ngeen xam ne seen bopp ngeen ko defal mooy li ci gën a rafet mooy li ci gën a neex kon nag noo ngi sant yàlla bu baax ci ndigalul sunu kilifa yëpp mbooleem ku sëriñ aramin jur ñi fi des néew na lool ay sët sëti Aramine ñoo fi des néew na lool te jàpp naa ne soxna Tairatu moom way juru sëriñ Modou Mamoun mii ci la bokk koo xam ne sëriñ moo du Xari mooy way juram te sëriñ moo du Xari Aramine mooy way juram xanaa kon ak sëriñ Baara Ndiaye mi ñu tudd léegi muy doomi soxna Asta Lawbe kooku doomi aramin la waaye ñi ci des ñëpp ci côté aramin ay sët rekk la ñu doon doomi aramin yëpp génn nañu àdduna sëriñ Modou Khari bàyyi ko na fi ak njabootamit bàyyi ko nañu fi ki toog jotaayam tey ab sëtam la. mu sëriñ Ahmadou moom kon mën naa wax ne moom mooy sunu kilifa ndax sëriñ Modou Khary ak sëriñ Modou Ajara ñoo bokk ñoom ñaar aramin bu fekkee ci côté kër sëriñ Modou Ajara la it mën nañoo wax ne mbooleem ku sëriñ Modou Ajara jur génn nga àdduna nekkatuloo fi ay sëtam moo fi nekk doom doomi doom ki nga xam ne tey mooy xalifa sëriñ Modou Ajara mooy sëriñ Falilu doom doomi sëriñ Amdi la ci Njaareem ka ca topp di doomi sëriñ Mbakke Ajara ñu gënoon ko xam ci sëriñ Modou Ajara fii ci gaar bu mag sëriñ Falilu ab taawam di xalifa am mu nga ne la ka ca toppaat muy sëriñ Modou Diarra moom it doomi Serigne Modou Ajara la woon am na doomam ju fi nekk ñu koy wax Serigne Modou xambaan ak magam soxna Faati Mbakke ku ñuy wax it Serigne Cheikh Penda doomi Serigne Modou Ajara la woon moom it suñ boroom def na nelaw na benn doom la fi amoon mu tudd soxna Assu Mbakke moom it bàyyi fi ay sëtam moo fi des Serigne Cheikh Ajara moom moo doonoon caat. ndax mook sëriñ Moulay sëriñ Moulay Bousso mu mag moom lañ ko tuddee woon moo amoon doom ju tudd sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Ajara moom moo doonoon caatum sëriñ Moudou Ajara moom moo nekkoon fii ci gaar bu ndaw mooy sama wayjur man mii di wax ak yéen man maay doom ju mag ci misaal daal ñaari kër yooyu muy kër sëriñ du Xari ak kër sëriñ Modou Ajara ñaar ñooñu mën nañu wax ne ñooy góor ci mboolem li fi aramin bàyyi ñay des ay jigéen lañu génn nañu àdduna nag seeni sët am na ñu fi nekk waaye comme ndaje mu mel nii dafay xat ci ñu leeral ñëpp ba nu xamante ba kenn ku nekk xam ki nga doon lu yomb dañ leen di wax li nga xam ne nii rek bu ngeen ko xamee dana tax li ci des dana neex a lijjanti waaye daal ñi ngi leen di seereel mbooleem kër Aramine gépp tey seen xol sedd na bu baax a baax a baax a baax ci jëf ju rafet ju rëy ji ngeen def te defal ko seen bopp ndax bu ngeen ko woote woon te tuddewu leen ko ko it bu ko njaboot gi yëgee kenn waru leen fay jiitu ndax seen yëfi bopp lay doon kon nag ci turu sëriñ Ahmadou ak ci turu sëriñ Falilou moomu ak seeni rakk sëriñ xaadim moo fi teewal sëriñ ahmadu ñi ngi leen di wax ne xanaa li ñu weesu de la ñuy rëccu waaye fas nañu yéene li des ci seen kanam dana nu ànd ak yéen ni sunu maam yooyu bokkee ci deret ak ci pas-pas nekke woon ci kanam sëriñ Touba ak ci démb ba ak murit xewwut nit nag dafa amul ci àdduna lu ëpp mbokkam comme ni ko sëriñ jiile waxee léegi rek nit ki mën ngaa ëppale say mbokk waaye mënoo leen a génn nit ki mën ngaa gën a xam say mbokk waaye mënoo leen a gën nit ki mën ngaa toll cër bu nekk mën nga koo am ci àdduna waaye mbokk moom suñ borom moo koy tànnal ku ko neex moo taxoon mu ne si allasi tasaaluuna bi wal arxaama lii suñu responsabilité ñun ñëpp nag aleykum raqiban jooju ci mujj mooy mooy mooy mooy yëf yi kon yéen dafa mel ne xam ngeen bu baax li yar la sa chartante ak ab jullit ci digganteem ak i bokkam ci jokk ko ak ci dundal ko ak ci taxaw def ngeen li leen war te xam nañ ko te jàpp nañ ko bu baax ba tax na kóllëre googu nag ñu nit fas na nañu yéenee sol sunuy dàll sunuy mbubb lépp lu nu am ak fu ngeen ne ak fu njaboot gi ne ñu fa yéene ànd ak yéen ànd ak ànd bu rafet boo xam ne nii mooy tax bu ëllëgee buñ dajeek suñu maam yooyu ku nekk mën a siggi wala nga xam ne la la waroon def nga ci dara xëy na nag tey ab tàmbali rek lay doon ci noonu ndax daan nañu dégg ci jur yi ñuy wax diggante mag ñi waaye la mag mën a dox ba xam ko ci ak bokk wax ko gone yu ndaw yi ay mag rekk ko man kon nag mu yàlla dimbalee tey ban gindikoo ba nu xam ne yeneen ñii ñun ñooy ñii mi kenn képp boo tuddee kenn tudd nga ñëpp kon fas nañu yéene ànd ak yéen ànd bu rafet di ñaan nag ci barkeb maam yooyu ci daraja Cheikh Ahmadou Bamba yàlla yàggal nu ñun ñëpp ba sunu maam ya lanu naaloon ñu àggale ko waaye nag ñu xam ne am nañu responsabilité ñun ñëpp bu baax ci gën a dundal ak gën a ràññee ak gën a taxaw bu baax te digaloon nañ ñu ne ab jullit kat war naa fexe ba xam li mu bokk ak mbokkam ba mën a jokk ak bokkam kon jàpp naa ne bés ni ki tey am na lënt lënt boo xam ne dëñ na te jàpp naa ne day yokk waaye dootul deltu ginnaaw kon noo ngi leen di tàllal sunu loxo yéen waa kër Ahmadou Fadiama mboolem ku bokk ci aramin ci góor ak ci jigéen incha allah dana dundal diggante bi dana ko safoo dana ko faale dana ko jàppe jàppeen bi nga xam ne moom moo moo moo nu war te moom lañu war a doxe xëy na wax ji du bari waaye li ci am solo rek. mooy ngeen xam ne yëg nañ li ngeen ñu defal te jàpp nañ ko te bëgg nañ ci lool te bu ñu mënoon a indi njaboot gépp gépp gépp wala taalibe yi wala ku bokk ci noonu rek danañ ko indi waaye olof danay wax ne lu jiw wa jeexul jogu fa incha allahu taala ci at yi ñëw ci kanam diggante bi dana gën a ratax doxin bi dana gën a rafet yaakaar ji dana gën a dolliku te it na ngeen xam ne lu ngeen nekk rek ñu ngi seen ginnaaw fas yéene ci ànd ak yéen loolu ñu ngi leen koy wax ñu ngi leen tàllal suñu loxo di leen jox suñu kàddu amuñu lu leen ëpp tey duñ leen caaxaanee ndax nit dafa war a fonk boppam ki nu yaakaar kat muy Serigne di radiyallahu wanu ku fonkoon boppam la ku fonkoon ay mbokkam la kon bu ñu bokkee ca bokk googee nag bu nu gindikoo danoo war a fonk suñu bopp te jàpp ko bu baax a baax jàpp naa ne lii ngeen def daal ñu ma koy faral di waxee rek. kër ma kër maaram gépp ngeen ko def ndax lii yoonu murid yoonu murid bépp ko bokk ñëpp a ngi fi ndax dégg naa délégation yi ngeen tudd tudd ngeen fi ku ne ñëpp waaye kenn génnu ci kër maaram kenn génnu ci Serigne Touba kon nag lu ñu bokk dañ ko war a bokkoo dañ ko war a téye dañ ko war a sàmm ndono li ba fexe ba dara du ko yàq te loola mooy liy defar te loola la la Serigne Touba bëggoon te loola la suñ maam yi newoon nangoo toppante bàyyante xel bu baax ku ne nga xam ne kii yey sa mbokk nga jàpp ko ni nga jàpp sa bopp ku tolloog yow nga def ko ni sa bopp ku la féeteeg mag nga def ko ni sa wayjur koo féeteeg mag nga def ko ni sa rakk jàpp naa ne ay bokk bu ñu àndee noonu boole koog di waxante dëgg boole koog di taxawante boole koog di fàttalikonte ci lépp loo xam ne lu yàlla gërëm la fa nu bëgg a àgg danañ fa àgg dara duñu gàllankoor kon nag noo ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa diggante bu rafet bii nga xam ne ci coobare sunu borom la amee ba agsi fii tam doon lu yàgg loo xam ne waroon naa weesu fii waaye nag lu jot yomb moo tax muy doo ko jot tey noo ngi ñaan di ñaan sëriñ Abibu ak sëriñ Mudu Maamun ak mbooleem njabootu Seexul Xadiim gi ñu fi tudd gépp nu ñaanal nu ba sunu diggante bii rattax lool lool lool lool lool lool ba liñ ci yéen lépp ñu mën ko cee matale waaye daal ñun waa kër Aramine gépp kontaan nañ bëgg nañu suñu xol sedd na suñu yaakaar dolli ko na bu baax noo ngi leen di ñaanal ngeen yàgg taxawee bis bi fa ngeen fi bëgg àgg yi te wayjur yi naaloon ko yàlla ngeen ko fa àggale te ñu ànd ko te lépp ànd ak ngërëmul suñu borom ak tawféexi Serigne Touba euh, kaddu yu jërut guddal waaye daal feeñal mbégte rek la feeñal it yaakaar feeñal it cofeel bu nekk ci xol rek moo waral ñuy wax maa ci gën a tuuti tey waruma woon a wax ndax sama kilifa yi ñii ñëpp a ngi nii samay kilifa lañ waaye nag fal isnu chartun fi xabooli sa ani sañu koo bañ moo tax ma def ko waaye noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp te di leen ndokkeel ci guddi gu tedd gii ci turu Sëriñ Balla Jatara al imaam fi masjidi Mbàkke xewar al taabii li boroom saam al muxtaram ci turu sëriñ Balla Jatara bi nga xam ni mooy sunu baay di imaamu ci jàkkee Mbàkke xewar jàkkee boroom saam mi nga xam ne mook sëriñ bi ñoo bokk lépp moo nu yebal ngir ñu teew ci bis bu tedd bii nga xam ni ay bokk ñoo ko tuddee ay bokk yu di lenn ndax mbokk gi daa set wecc ci wet goo dem al uxuwa ad diiniya damawiya loolu li muy am dafa bariwul diine ngeen bokk ko bokk li ngeen gëm bokk deret ndax kat boo gisee ma jël deret ji ñett yu njëkk yi da koo ëpp solo ñaar yu njëkk yi da koo ëpp solo bi nga xamee ne maam yi yenn la muy sëñ aramin baatin ak soxna faajama mbàkke ak soxna sëynabu mbàkke soxna Seyna mu jur soxna Asta Jatara soxna Astu Mbàkke mu jur sëriñ Moor Asta Jatara dañ koo tàmm waxee noonu ba tax na moo tax ma juum santale ko Jatara waaye maam Moor Asta Jatara la ñuy wax ca Mbàkke muy menn maam balaa loolu nag ñu nuyu seti sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ñu ngi fi teew ci biir jotaay bi ñu ràññee ci sëriñ abibu mu sëriñ mohamadinil fadil ak sëriñ maamun mu sëriñ abdul ahad mbàkke ñi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp mel na ni nag mbooloo mi mi jóge mbàkke dajeeg mi jóge tuubaa ndax ci ñaari naax naaxiya la ñëwee muy genn genn wet loolu nag wàllu dëkk wi fasantikoo moo ko def muy naaxiyatu tuubawiya wa naaxiyatu ya bu dee ci wetu mbàkki gi ki jiite délégation bi muy sëriñ Mamor Jatara ibnu sëriñ Balla Jatara mi nga xam ne moo yebal ak sëriñ Jiili Jatara di doomi baay ci sëriñ Mamoor Jatara ànd nañu ba tey koo xam ne sunu doomu bàjjan la waajuram ak sëñ Balla ñoo bokk lépp muy sëriñ Alxaaji Jóob di doomi bàjjan maam say Jatara ak rakkam sëriñ Paap Jóob jaaja di doomi bàjjan maam say jatara ak sëriñ maam jatara mu ndaw ñu miine ko sëriñ maam moor aada jatara ak mbooleem sunuy rakk ànd na ñoom ak galas jatara mii nga xam ni moo téye micro bi di wax ak yéen bu dee ci waa kër bàyyi sëriñ fii ci tuubaa sëriñ am di mi nga xam ne mooy ab taawam am na ñu yebal xaj na ëllëg dina fi teew ndax dégg naa mu wax ko muy sëriñ Basiiru Jatara ak sëriñ Moodu Jatara moom bàyyi sëriñ Jatara fii ci Touba ak ñaari doomi sëriñ Amdi muy Ousseynou Jatara ak Assane Jatara ànd nañu ba tey doomi soxna Mati Jatara muy rakki bàyyi seex njaareem di maam maaram ñang mi ngi ci jotaay bi jotaay bi nag ëpp na liima lim waaye nag ala waj i talxiis gàttal dina tax ñu tënk ko waaye balaa looloo jàll danañu la nuyu yow sëriñ Mbacke Abdourahmane yow mi nga xam ni alqayta alayna muxaadaratan rafiata daraja maliatan bilmaani asiwaajiya yaa ñu jox conférence boo xam ni fees na dell ak i ci wàllum dencante yëkkatiku na lool ci daraja niveau bi kawe na lool ñu ci sant yàlla bu baax waaye nag daje bu daje bu dajale lii lu mel nii moo yombul bokk yi du yenn yi bokk woote lenn bi ñu wootee lenn bokk lépp mooy la ciy diine ñoo ko bokk la cay pas-pas ci wàllu Sëriñ Tuubaa ñoo ko bokk la cay deretit ñoo ko bokk nga xam ne kenn génnu ci sa moroom comme ni ko mbokk yi tënkee mel na ni wëlloor wi nit war a xool ci moroomam ngir war ko ca roy mooy fu ñu tabbee ci diine ñu naw la ci fu ñu tabbee ci ak murit ñu naw la ci fu ñu xoolee sa deret mu sell neexa laya ngi lool neexa bokkoo lool loolu nag dafa feeñ ci jotaay bi te booy wër dëkk bi mooy feeñ fépp kon nag loolu lu mate sante la sant yàlla bu baax di jéem di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu sol Saaliwu Ñang moom Serigne Cheikh Ñang moo taxawoon fii daaw di leen nuyu nuyu woon leen bi doon jattale kàddu yi sant daayira bi nga xam ni mooy sëti Serigne Modou xaajama ak i soppeem moom la yàlla mayaat. aw fan wu mu dundee ak wér ba mën a taxawaat fii kon loolu dañ ko ciy sant ñu ngi ñaanal nag sëriñ Sidi Muxtaar mi nga xam ne moom la suñ borom teg ci kanam njabootuk sëriñ Tuubaa gépp suñ borom guddal aw fanam te mottali ay naalam di ñaanal sëriñ Cheikh Ñang mi nga xam ne moom la suñ borom tegit ci kanam njabootuk sëriñ Ahmadou Fadiama gépp suñ borom moom it mot guddal aw fanam te mottali ay naalam dara jëyeen ci barke sëriñ Tuubaa kàddu yi nag am na ñu bëgg mu gàtt waaye nag du mën a gàtt ndax xol bu seddee moom mën naa àgg fu ne waaye nag yàlla mën naa dogalin mu gàtt ndax dañ may sant loo te ñu war a sant te ñu mat a sant dafa bari te ñëpp de ci baas bi ka jiitu ci cant gi nag mooy Serigne Abib Mbacke mi nga xam ni moom la suñu borom dogal mu sosaloon ñu daayira bi ci bu yàggoon boobu ba léegi ñu di ko doxal di ko doxal di ko doxal di ko doxal ba egsi fii ndax képp koo xam ne digal na la aw yiw joxoñ la ko nga dox ca te xam li yàlla di fayee ci aw yiw te yaakaar ne baa ngi koy dox te yaakaar ne boo ci doxee yàlla dana la fay kooku amoo ak ak ak cantam ak xanaa da ngay wax ba sonn rek bàyyi sëriñ Abibu mbooloo mi fi teew de ñu ngi lay sant te di la ñaanal te di la gërëm tey ñaan nga sut sama am sëriñ moo di Khari aw fan ndax sëñ Modou Khari guddoon na aw fan lool ndax amoon na juróom-ñett fukki at yu teg nga sut ko aw fan fuuf te lii nga xam ne yàlla moo ko joxoon yonent bi ci coobareem lii nga xam ne sëriñ Tuubaa moo ko jënd ci njàmbaaram ci li suñ borom doon jaay suñ borom mi nga xam ne moo dogal yooyee yàlla na la ci sedd cër bu doy sëkk ba nga seddaan ñu ci ñun it ci dara joyante barki sëriñ Tuubaa ñun de lépp lu wax ci yow wax rek lay mën a doon man toromb wax ndax lii nga ñu defal de dafa tolloog lii nga xam ne dañ koo digle ci ku jëmbat ak garab nit ña di ca toog njariñ lañ koy am ku xàll aw yoon nit ñi di ca jaar njariñ lañ koy am ku bënn ab teen nit ñi di ca naan yool banque am lim ñu defal ci daraja boobu lañ ko mën a yéegal ndax jotaay bi mën naa boo sosut woon daayira bi jotaay bi mën naa mën naa ñàkk tey dama koy faral di wax ñu bëree bëri buñ nekkee ci jotaay yi diine yu mel ni day mel ni ak yàkkamti daf leen di dugg te loolu mbirum seytaane la ndax ñiy faral di dem ci làmb yi am na ñoo xam tisbaar lañ fay dem te fekk arbitre bi tàqali ñaari mbër yi duñ fa bëgg a jóge mukk ci àdduna ni noonu ñi nga xam dañuy dem ci soirée yi danañ fa jiitu ki nga xam ne mooy way te feeg waykat ba ñëwut ba yeewi leen duñu sañ a dem kon bu ñu yàlla taw feexalee ñu am koo xam ne waxuma la tuubaa waaye tariixa boo mën di bokk te yàlla dimbali la ci xol bu set ngay ab jàngkat foo ko dégloo danga xam ni alxuraan kat ku nekk xam na ni gàttut te bi ko yonent bi wax booliwu ci alxuraan xaddis it ku xam na ni lim rotal ci xaddis néewut te ba mu koy waxit waxam jooju bokku ci te bépp wax boo xam dañ koy wax ngir jëmmi yàlla ak yonent bi ca foofu rek lañ ko mën a kon moo tax ci sama déggin man bi ma ci am moo tax bépp wax jotaay boo xam dañ fay waxee lu baax loolu rek lañ koy ndax waxtu wii nga xam dañoo jàq dañoo jàkkaarloo di wax ak yéen buñ tusutu woon jotaay bu mel nii li ëpp ci mbooloo mi dañuy dem tëdd di nelaw yi te lii moo ko naafilaa yam te dégg naa Sëriñ Tuubaa daan na wax ni tëddi nelaw de mooy yàlla dong la gën kon bu ñu amee jotaay bu mel nii bu ñu fegal nelaw yooye loolu duñ ci mën a doyal man naa am nag lay tax mu war a gàttit mooy nganti biir yi nga xam ni da koy toogaale ci jotaay loolay war a tax ñu gàttal ko kon yéen seeni kàddu ci cant yaak Sëriñ bu lool rek la mën a doon daal daal suñu xol sedd na guy bàgg ca lool amaa ñi nga xam nag moom lañ tuddee bis li tax ñu di ko tuddee daayira bi dafa am gëm-gëm boo xam ne daf koo gëm muy dox ci ngor di dox ci kóllëre di dox ci njullite di dox ci taalibe ndax conférence bi bi ñu ko njëkkee taxawal ñu ngi ko tuddee suñ suñ maam suñ Mor Sarr bu ko nit déggee ca àll ba mu jaaxal ko waaye ñun ñu ko tuddee du ñu jaaxal ndax xam nañ liñ seq ak moom waaye bi ñu ko fi leeralee daaw leer na ñëpp mu jaaxaloon bi ci topp ñu tuddee ko sëriñ Xaafiya Ñang loolu moom kenn du ko dégg di laaj lu tax bu ñu nee waa Kër Ñang tuddee nañ sëriñ Xaafiya Ñang seen jotaayu diine bu am solo booba kenn du laaj lu waral loola ndax dañ dañ koy toxte la rek ci ñang ja daay ñu tuddee ko sëñ Daam Abdourahmaan la yi ñu tuddee ko ko mooy wax nañ ko fii daaw ni suñu ñetti maam a ngi nii yoo xam ne daan nañ jàngee ci ñoom moom alxuraan te loolu képp ku loo ko defal amatoo fayam muy sëriñ sëriñ Mor Anta ak sëriñ Modou Xëri ak sëriñ dëkk kon yéen ñii nga xam ni mooy waa Kër Maam Xaramin Baati bu ñu leen ko tuddee ñu leeral leen li tax ñu tuddee ko ña ca gannaaw ñëw ci yéen loola dafa war a leer ci yéen ndax euh, euh, Lamine mii sax mel na ni bi muy lim daayira bi bi muy lim suñ bàyyi fi taxaw te doon leen sant booba xam naa dañ ko joxut sëriñ maam na Ñang ndax ñëw na fi moom sëriñ dëkk xaw bàlla ñam sëriñ dëkk moomu suñ maam sëñ Modou Fadil mu ko tuddee sëriñ maam Aramil Baati kon ndeem moom moo mën a jur doomam tuddee ko nijaayam kon ñun bu ñu amee suñu conference lu tax duñ ko mën a duñ ko ko mën a delloowaat moom lii mooy sababu ñu tuddee leen ko ndax maam Aramil mooy nijaayi sëriñ Modou Fadil ma lenq loolu pour mbooloo mi xam ko li ciy jaaxal nit ñi nag ñu bëri ndax dayam ñoo xam ne boo nee baati ne faajama loolu daf leen di jaaxal dafay mel ni daf leen di réeral dama koy faral di wax ñu bëree bëri ba am na ñoo xam boo leen doon wax lu turu sëriñ Modou Fadiama sax dañuy mel ni kuy baamtubaat bi di ci nat nat yi daf leen di jaaxal duñ ko mën a wax loolu nag la ko loolu dañ ko askan dañ ko ràññeelewaat ci ci waajuram wu jigéen ndax mu ngi mel ni mag ñi sëriñ Mor Jaara dañ ko delluwaat ci soxna Jaara moo tax ñu naan sëriñ faaje ma yaay moo tudd soxna Fadiama Mbacke waaye moom Ahmadou la tudd sant ñang di taalibeeb Serigne Touba bu ñëpp xam loolu pour mbooloo mi xam ko daayira bi nag mbooleem ñu ci bokk ñëpp wax nañ ni ñu ngi gërëm suñ mbokk yi nga xam ni mbokk deret la goo xam ne dafa réeroon te ñun xamuñu ko waaye nag ku yàgg gëstu te doo noppalu da xam mbooleem lu la rawoon wala boog la la ci amal njariñ la cépp da nga ko xam ndax nii ngeen wuy seede tuddee nañ ko fi ku ne mu wuy si waaye nag seen wuy si bi moom ah mën naa am bu déwénee waaye yu fi jàll daal xam naa ni bi moom benn du ci moom loola nag da ko defee yëg-yëgu deret ak yéene ak xol ak xol bu sedd loola lañ yëg ci seen wuy si gi ba tax na mbooleem ko bokk ci njaboot gi ci góor ak ci jigéen noonu nga xam ne Serigne Fallou mi doon wax ni la ñu tàllalee loxo ni lañ leen ni lañ la dool dolle ni lañ ni lañ leen delloo loxo ba ci anam ga gën a gën a loxo ba gën a set gën a jot boo xam ne du ngeen ca yootu ba di ca fakasal wala ngeen ca euh, tërëf incha allahu rabbi fas nañ yéene daal lépp lu ngeen xewle comme ni nga ko waxee sëriñ Fallou ndax maa ngi fàttaliku ci gannaaw ñëw nga fi bi ngay wax seen màggal bi man a yow ñu daje ak sëriñ Bamba yaakaar naa keroog man fanaan yéene ji ngeen am daal ci yéene jooju moom moo sabab jotaay boobu ndax ñun moom lañ amoon ba tuddee leen bis bi tey ñaan sëriñ borom mi nga xam ni moo sàkk saytaane saytaane jaar ci fettirloom bi yàq suñ boroom tënkal ñu ko ba suñ diggante ak yéen ak ñeneen ñu duñ yéen saytaane bañ caa man dara dara ju yéen ti barki baa Tuubaa amaa nag li des mooy soññi daayira bi ak sant leen ak gërëm leen ci njiitul sëriñ Xaadim moom sëriñ di mi nga xam ne moo jiitu daayira bi ndax daayira bi moom bu ñu koy wax sëriñ bi bu mooy ki ko sos jiite ko toftaloon ci suñ suñ mag ju baax ji di sëriñ Mut Sàmb mu ngi ci kaw mooy mu di ko doxal waaye day am loo xam ne saa yoo ko doxalee ba mu wóor ne say rakk mën nañ ko doxal nga jox leen ko loola dara nekku ci sëriñ Modou kon ñu ngi lay sant di la gërëm comme nañ ko santee sëriñ Abibou daayira bi nag ñu ngi ko sos ngir ko ak bokk ak liggéeyal waa ju yàlla gërëm ñu bëggaat ci ngërëm la ndax boo bëggee àgg ci gaaw a àgg ci yàlla ndax yàlla moo nanguwut ku jóg ñëw ci moom direct ndéem doomu aadama ñii nga xam ne dañ leen di falfalee adduna ñoo koy bañ kon gën yàlla mi leen bind ndax ñii nga xam ne ay buuri adduna la ñooy président bala nga caa dem dangay ñaan audience fu ne nga jaar fa te boo fa demee dafa am melokaan boo fay nekkee da ngay damm say bët di yaru yarul di tegale say tànk ngir bëgg lépp loo ko wax mu def ko kon nag ku ku bëgg ci li yàlla yor di ko jox ab jaamam dangay dem ci jaam bu yàlla gërëm nga dem ja mu di dox sa digganteeg sa borom di la peledeel ba mu am ca lam am nga doog ko mën a jàll feneen loola mooy sababu sart daayira bi ndax buñ ko sosee taxaw ñun ñëpp ni dañoo bëgg a amal bis bu mel nii ndax damaa dégg sëriñ Saliou mu wax ni sëriñ yu Mbacke mu wax ni daara ji de li muy bëri bëri bëri aw nit lenn dong nga tax ma di ci sonn bu ma wóor ni kenn dong moo ci baaxee jaral na ma ko ak mboolem lu ma ci sonn ak lu ma ci def ndax kenn ko baax mën naa defar adduna fépp loola moo tax waxtaanu Serigne Mbacke ñun ñu di ko taamu ci waxtu wu nekk ndax saa yu fi waxtaanee jóg dem mën naa am Saliou mii di wax de wax ji du ko jëfee waaye mën naa am keneen jëfee ko mu jariñ ko dem jëriñowaat keneen dem jëriñowaat keneen te loolu lépp ci suñ Mbacke mi lay bàyyi ko moo tax ñun ñuy dajee waxtu wu nekk di la taamu di la jox thème yi nga xam ni dañ ciy làmbatu ngir nga leeral ñu ko suñ bokk yi di sant nag suñ bàyyi bu baax a baax a baax ci anam gi nga xam ni moom lañ ñuy wuysee ndax buñ toogoon it kenn du leen ca mere kenn du leen ca xool bët bu tàgg ndax koo xam ne sañ na laa demloo ca naaj wa sañ na laa buubloo kon boo wootee sa mbir mu ñëw toog ca mënoo ko amee lu dutu cant ndax ñoom bëgg ñoo gunge ak wan nañu lii ngeen di def kat dëgg la moo tax ñu ñëw toog fi te it ñoo xam ne lañ leen sosee woon te yar leen ca fàtte wuñ ko muy lislaam ndax kenn toogiwut jotaay bu gën jotaay bi lislaam ak loo mën di def ci biirum nekk akub ruq moom nit defut lu mel noonu lu gën lool loola loola tax ngeen ñëw fi toog di ñu jàppale li ci def nag ay dénkaan la yoo xam dañ koy dénkante ñun waa daayira bi gannaaw bañ santee sañ xaati mi nga xam damaa tàmbaloon ak cantam te àggul ndax mel moom dong laa sant am na ñeneen ñu yaayoo sant nag ndax waaye boo santee njiit li njiit li moom mën naa jël leetar bi jox ko mbooleem ko yaayoo ak cant mu jox la ko sëriñ Xaadim ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm te di la ñaanal suñu borom dëgëral la ci liggéey bu rafet bii nga xam ne nga ko ànd ak ñun du ko def. ñu ngi nuyu bokk yëpp te di leen ziyaara te di leen jéggalu eh, ndax waxtu wi xaw naa xoj <coughs> leeral rek ni kat bi yi nga xam ne moom la ñuy wax dañ ko sof ci ndigal lu jóge ci sëñ Abdul Aziz ndax moom moo fi représenté sëriñ bi tey mooy jëwre ni liggéey bi muy màggal gi ñu dëgmal di bisi ñaan ak fàttaliku waajur yu baax yooyu bis bii nag di bu ci am solo ndax li fi teew li fi li fi xew ñépp ko gisandoo jóge ci ay soppe yuy ay sët ak i taalibe jëm rekk ci fàttaliku waajur yu tedd yu baax yooyu kon ñu xam ni daal kàddu yi ñu yëkkati ñu ngi koy yëkkati ci turu sëriñ Abdoul Aziz nam ko doon defee rek bis bi bisu barkeelu la ak xëy na bëgguñoo dimbali waaye bu dee ci ñu ko mën a taxawee kilifa yëpp a ngi fi muy waa kër gi sëñ maam xaale ngi nii toog sëñ Moustapha ngi nii toog ah, sëriñ Alxaaji Xaadim ak njabootam a ngi fi moom it mi ngi ñuy dégg ak sëriñ sëñ maam Baara ak ñépp ak sëñ maam Bay ak ñëpp kon xëy na bëgguñoo dimbali rek na ko daan defee la waaye ñu ñu gën a xam gën ñoo man ñi ngi fi ni ki noonu it njabootuk sëñ Cheikh gépp a ngi fi ndax gis ngeen jiili sëñ jiili njaareem nga xam ni moom la sëriñ Cheikh booleek sëñ maam Bay ñu taxawe màggal gi nga gis leen ñoom ñëpp ak seeni taxawaay ci taxawaayu rafet yi yi ñu taxaw kon mën nañ yooyu ñi ngi nuyu ñëpp nag di ko tàmbalee rek fi mu war a tàmbalee muy waa kër Serigne Touba te ka ne ca booba di Serigne Habib mu Serigne Mouhamadul Fadal ak rakkam ju baax ji di sëriñ Mamoun ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Aziz mi nga xam ni mooy wax ci turu sëriñ Cheikh Niang di leen siyaare bu baax nag di ca teg nag. mbokk yi nga xam ni ñoom lañ tuddee bis bi muy waa kër sëñ euh, Alamine Baati waaye nag di ziar di nuyu sëriñ Abdourahman mi nga xam ni kenn nattabletul ab liggéeyam ci biir toolub Cheikhul Khadim ci di ko def rek na mu gën a rafete ca xam-xam bu mat ba ak rafetu joxe yen ndax nit mën naa xam lu bari waaye du ko mën a joxe moom nag suñ borom taw féexal na ko mu mën koo joxe ci gën gaa rafete anam te loolu it suñ mbokk seere na ko léegi mooy li muy wax da koy yëg te it kuñ xam ci àdduna bi la ndax léegi fooy wax ci rajo yi ak télé yi dañ koy jokkale ci àdduna bépp ndaje diine yëpp it xam nañ ko ndax ñuy taseeg moom muy ñëw ci barab yoo xam ni dañ fay yebal ay nit sax ñu fay représenter ay kuréel waaye moom dañ koy jël mu nekk personne ressource nga xam ni xam-xama bu mat bu am solo ak ay contribution yu am solo yoo xam ni ñun mën nañ koo seere ndax bu yàggul rek tase nañoo moom ci ndaje moomu nga xam ni dañ ci doon waxtaane mbiri daara yi euh, te gis nañ taxawaayam kero ca barab booba muy ko xam li ko tax a jóg te man koo defendre muy défendre alxuraan mi nga xam ne sax yàllaa ko njëkk a défendre te moo ko sàmmal boppam waaye nag barkeelu bokk ca loola bokk na ci ñi ko yàlla may moom ndax alxuraan moom inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun kon Cheikh Abdourahman mënuñu laa wax lu weesu li sëriñ Saalihu wax léegi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci turu kilifa yooyu ndax li gën a am solo ci jataay bi moom nga yore moo tax kon ñu ngi lay sant baax di la gërëm sëñ Abdoul Aziz nag dafa waxoon ni sëriñ bi nee na sant na mboolem ku fi teew waaye nag ma nga cee jiital ñi nga xam ni ñoo yore liggéey bu rëy bii te di ay sët waaye di ay soppe ku ne xam na ni saalihu leeral na bu baax kuréel gi nga xam ne ñooy ahbaab yi nga xam ne dañoo bëgg sëriñ Modou Fadiama te sëriñ Habibou ne ca bopp ba loolu day tegte la ak mbaaxam ak modestam waaye moom ku war a siyaare la te li fi nekk lépp maama ma ko fi indi kon bu ko neexoon mu selenglu te du tee ñun lañ séq moom xam nañ ko ndax lañ séq ak moom lañu ñu ca gënal mooy taalibe ga ndax waajuram moo wane woon ni ak taalibe rekk moj mooy maye dara ci Cheikhul Khadim ndax cër bu réy bi nga xam ni moom la Cheikh Mouhamadal Fadal am jaay ak njureelam jëndee ko taalibe moo ko may kon bu ko neexoon loolu lépp mën na ko ci bañ a fekk waaye cant gi ak ngërëm lim jëmee nag ci waa kuréel gii moom ci sëriñ Habib bu la koy jël teg ko ci loxoom ni ko noonu mu jàllale ko ci rakkam ju baax de sëriñ moo Modou Samb mu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko sant di ko gërëm ak mbooleem soxna yi nga xam ni ñoo nekk ci jat jataay bi sëriñ bi nee na bég na lool ci melokaan wi nga xam ni moom ngeen mel ndax seen contribution ci màggalu Kër Ñang ci fàttaliku waajur yi tedd yooyu muy sëriñ Modou faajama ak sëriñ moo du Khary dara la gënalu ko ci lii ngeen di def ndax jataay boo xam ni ku fa toog ñu dàggiwaat la sa xel dellu ci suñu borom subhaanahu wa taala te ku ne xam na ni ñun suñu nekk ci àdduna ñun nit ak junne weesuwut lu dul jaamu yàlla kon li ci ëpp solo moom ngeen yore ndax woo nit ñi dajale leen waxtaan ak ñoom ci thème yoo xam ne mënut a ñàkk ci seen dund leeral leen ko ba kenn ku ne jaajuwaat koo xam ne yaa nga woon ci yoon wa nga gën a yokk ku ca nekkutoon nga tuub fas yéene caa nekk nee na loolu dara gënalu ko kon nee na mu ngi sant kuréel googu di leen gërëm bu baax a baax di cof ca cant googa it bokk yim ko seqal yépp nag muy waa Kër Baay sëñ dëkk nga xam ni sëñ maam Thierno Niang mi ngi nii toog di sëñ xaadim mi nga xam ne moo na ci bopp kër ga di xalifa ba réerawut ak moom ci dara te lu lu lu waa kër gi nekk ak lu jaboot gi nekk ma ca kanam nee na ñooñu it seen cant biir na kon mu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax waaye di gën a sant mbooloo mi it ci tànn giñ tànt na tànn nijaay seen Ahmadou Fadiama tuddee ko bis bii sant na leen ci lool waaye nag ña nga xam ne ñooy ak njabootam te teewal ko fi ni nga xam ni moom lañ ñëwee te saalihu wax ko léegi ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët mësuñoo gis ku ñëwee ñëween wu gën a rafet googu anam kon bokk googu nga xam ni dundal ko fan wu gudd nga ca wërsëg wu yaatoo nga ca ndax xaadis moo ñu ko waxoon looli nga xam ne moom la ci yàlla dige ci ku ko jokk yàlla nañu dal ñun ñëpp ci barkeb Sëriñ Tuubaa sant na bokk yooyu bu baax a baax a baax gërëm na leen bu baax a baax a baax gis nañ sëñ alxaaji ak sëriñ fàllu kenn ku jëne lim fi lim fi wax soññee bu rëy ak xam-xam bu rafet ak safoo kon mbir yi daanaka li ci sëriñ bi wax du weesu ak cant mu ngi sant mboolem ku fi teew tey ñaan suñu borom defal ñu lu kawe suñu jort bis yu mel nii nag li ci ñëpp yi def rek moom la ciy def mooy fàttaliku ndax fàttaliku dafay waral ndon leen aku ngëm yàlla waaye ñu xam ne ñi ñu fi dajale ni ko ñëpp waxe mooy nekkuñ woon ca la leen neex ba am liñ bëgg ndax ku ne ca la leen neex doo mën a am la nga bëgg sëñ Modou Fadiama gis nañ ci ak njëbbulam la ci xew lépp xese bu gudd la waaye dañ koy tënk rek mooy amoon na cërub yàlla waaye dafa taseeg ku ba mu taseeg ku ko bi da koo nangul te nangu dogalub yàlla dafa bokk ci li nga xam ni ci sarti ngëm yàlla yi la mooy yàlla miy joxe bu indee koo xam ni moo la sut moo la ëpple lam woote te lépp jëm ci yàlla da ko war a nangu moo waral mu nangul cheikhul xadim ba cër bu réy bi fekk ko ci nangul seexul xadim nag weesuwul jëfe ndigali yàlla yi bàyyi ay tereem ci loolu rek lañ nekkoon ñoom ndax sëriñ Touba leeral na li ko tax a jóg mooy lan diine lislaam ji nga xam ni daa fekk lu bari ñu bàyyi ko ca walla ñu di ko ci jéem a yokk mu dindi ko ba mu set wicc teg ko ca fam tàmbalee woon mooy jaamu yàlla gu set gu ànd ak sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa loolee ca lañu nekkoon ba lañ am ci cër yëpp ñu am ko tënk ba dana gudd waaye daal mu gudd mu gàtt mooy xelam dal na xolam sedd na ndax fi mu seen njaboot gi ak fi ñu jëm ak li fi dégg lépp rafetlu na ko te foofu rekk mooy yoon wa kon yéen waa soppee si Ahmadou Fadia Mignane sëriñ bi nee na sant na leen gërëm na leen rafet nu la seenub liggéey ca gën gaa rafete anam ndax jam ngeen mbir mi te jam ngeen ko ca pàddu ndax ku gis saalihu li mu fi wax léegi xel gën naa dal bu baax a baax ndax liñ naan doomi mbëri jàngil mbëri des na la bis dana ñëw loolu moo ko dal waaye tey jii moom xolam sedd na xelam gën naa dal ba tax na daanaka ñun sax ñun ñi ñuy wax loolu luñ ci dolli daanaka amuñu ko bañ joxe ngànt rek waaye daal sëriñ bi nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp loolu nag ñu ngi koy sof ci kàddu yi nga xam ni moom la ñu sëñ Abdou Aziz waxloo woon ñu wax ko di ñaan rek yàlla suñu borom moom mi nga xam ni fu jàmm nekk moo ko fa def yàlla ñu dallu jàmm ci suñu réew dolli ko ci réew jullit ñëpp jafe jàng fee tënk-tënk yi ni ci àdduna bi yëpp yàlla na dàq yëpp ba nga xam ni kenn dootu gis lu koy naqari wala lu koy jafe ci barkeb sëriñ Tuubaa allahuma sabbinna ala diinika al islaam wa axfasu alayna fi xayaatina wa inda mamaatina wa baada wafaatina wa aatina asdaqa al iraadati wa axsana tawakkul wa libaasa taqwa wa tuula umrin fi xusni amal wa saat risqin wa sixata badan wa husna alxaatimati wa saadata daarayni maa kifaayati hammayhima wa duxuula aljannati bi gayri xisaabin amin ya rabbal alamin waltuf bina wa qawwina wa kun lana wa hab lana husnal xitaami rabbana wa salli ala nabi wa sallimi wa aqdi bihi xaajata kulli muslimin amiin amiin amiin